ñi ngi dégg ñi ngi ci nit ñi ñi ngi naan euh, ji dafa euh, amoon ay xët-xët ak ki nga xam ne moom mooy agent de l'état bi et que gis nañ ne video yi nga xamante ni ñoom ñooy wër gi deful lenn au contraire moom moom mooy ki nga xamante ni moom lañ doon sonal Babacar Diop mooy ki nga xamante ni moom lañ doon sonal di leen buntu xataal mais ñun buntu xataal luñ kenn dooruñu kenn saagawuñu kenn suñu président lañ doon waxal ngir li nga xamante ni mooy yokk gi nga xamante ni bëgg nañ ko yokk wala yokk nañ ko suñu courant mu doon loo xamante ni dëppoowul ak yoon et que réew mi kat jàpp nañ ne même bu dee benn nit sax buy bañ yaakaar nañ ne dinañ continuer di bañ dugal nañ ay lettre d'information bokk na ci le 13 laataa le 13 mën nañu communiquer ci diggante bi ne leen dañuy def sangam wala dañuy wax sàngam mais jàpp nañ ne le treize ñun ak lépp lu nga xamante ni mouvement la lépp lu nga xamante ni ay syndicaliste lañ muy CN CNTS muy CSA ak euh, ay mouvement yu mel ni Y ak ñeneen ak ñeneen dinañ lëkkaloo ñu xool lan lañ war a mën a def ensemble ñu wàcc ay bu ñu donte sax bu ñu bàyyee suñu ay mbokk du tere dinañ nam amal loolu nga xamante ni namm nañ ko